waa jànkal foog nga ni deal bi dinañ ko assuré mbaa du éclaté wu. bi lal naa ko ba pare tracé naa ko ba mu leer naa waa loo nar a teg. li la lax. li la la ni sama silib laa jël xottati ko ba mu sew def ci sama faux deret. fas yéene ko woon a xoolal yootal ko ba ci néeg bi xam nga fii du néegam bu ma ko fi yootalee ba ñëw luñ ko jiiñ du neex a wéeti bu ñëwee ma teg ko fii ne damay waxtaan ak moom après ma éclaté ko def samay feem hmm, mbaa dir bi du éclaté eh man ngay waxal de nag maa fàtte lii bu leerul ma xam ne dara dootul leer sama xarit bi jànk ñu assuré lii. eh fit bi laa bëgg nga taxal ma ko ba mu dëgër dégg nga. Hmm. non yow doo nit. wuy ma maa ngi dugg si biir sama nekk su ma diggee ay yuux rek damay daw ñëw. mel ni ko ci xamul dara. si ko na ma dégg. nañ ko assuré de. tey sama xarit yaay ndaanaan. Paa Musa? jàll si ni yow tamit. tànjat fii eh ñëwal fi, na ngaa bëri kersa nag yow jàll ya, si nii. ok yaru. Papa damaa bëggoon nga gën a góorgóorlu. xam ne àdduna du dara loo gis dafay jeex sa tante lii mu lay def bëgg nga baax kese mais ci leneen. incha allah nag di nga ci xam dara après bis boo yoree say njaboot ba di leen encadré di nga xam ne sa tante bañu loon benn yoon dafa bëggoon nga baax te bu boobaa nag ngalawaay bul mus a fàtte lum la mus a defal nanga ko jàppale bu baax. tànjat yàlla dafa def ni bët bi ma doon xoolee sama yaay bët boobu laay xoolee sama tante bi te loolu lu mus a dañ. طنجة لول جرو جوي قلوب عدو ما كسر ده يجي ان شاء الله ويسم الله يصوروا ما بسلي ما مصوروا ما بسلي تانو تانو تانو ويبا مصير طبعا عدونا ايوه بابا ورو ما بسلي لا لا لا مو خيوجته حبيب حبيب بابا مصور ومو ما مو خيوايا ما عدونا يا كلها لا لا لا لا دف لا لا دفت Mwangu feki si moto ndine vamuviole mara. Yo. Imo ito maram imbecile. No, viole man. Ba ya goma pa. No. Hadi kan? ya, masa masa. Kai hadi hadi masa. Dina dia ya, inshallah masa. Kai. No. masa. No. <laughs> No! Ya! Yeah. Allahu akbar. Wayu ki lu ya mu sa yére yi nii wayu lii lu mu doon mu mel ku ke mu mel yuk ku ki xamoo moo tax ma leen bu ngeen di nelaw bëccëg bu leen di taraxlaayu dee leen sol slip sol cuissère sol pantalon du tekki sipp loolu yëpp dama leen koy wax ndax doome xaraam yi mel na ci papa Moussa moo tax waaye gone gi mooy doome raam xale bu juddoogul xam lii yow yaa man lan lay wax suñu waa loolu la loolu gone la doole. gone wala mu na sama alam tara kayfa. yow sa ndaw dem na di yow sa versé ne amoto versé na di sa ndaw la yóbbu yuuxul. moo gone kii doo màggagut xam lii kii bu màggee moom fu mu koy waxee ah yóbbu na sa versine sa versine ngi na ko yóbbu mi ngi nii ah, ñun nga xam ne ñun nay versine lañ gën a fonk ci àdduna versine ñun dañ koo bëgg ci suñu xol ko amul dee nga ci ñun bee bee yow yaa ngi jooy di

mais jooyuma euh, jooyuma jooyuma ndax loolu sérieusement waa léegi lan ngay jooy sama xol moo tooy sama xel sori sama xel dafa dem ci yaayam tey jii nii na mbay fee mu tëdd amul lu ko neex leer na ma et bu yee woon tey ñu ne ko sa doom papa Moussa bi nga xam ne danga def ci moom ngor def ci moom sérieux yar ko yaayam nekk ku ñu ne tey sa doom boobu moom moo dem di sàkku ji nit di violer. bi bu mu jooyloo. est-ce que yaa ngi sentir li may resentir yaa ngi koy sa sama propre doom. waaw oui maa sentir li ngay sentir bu baax. non mais boo duggee foofu rek tem tem nga jooyloo. mais tu sais papaam sax tey du fanaan ci kër gi. non non bébé. non non non bébé dama la ñaan. Non, trop, c'est trop. Oui, moi. Écoute, je t'aime bien, je t'aime beaucoup. Je suis un peu plus Mais papa, je suis un peu plus grand. Je suis un peu plus grand. Non, non, je suis un peu plus grand. s'il te plaît. Bébé? papa musa eh gaawal yow ya, yow laay xaar génn yow génnal génnal sama kër gaawal ay eh, pap looy def nii eh yow ci biir ci biir waa Moussa foo jëm eh génnal génnal Eh, papà mi sa pure da un dia. Ehi, dove xew ni ngay duggee ci biir kër gi. yow lan moo xew ba papa Moussa génn kër gi te fekkuma ko kër ga lan moo xew ba xale bi génn kër gi. eh mu fontoo laa la papa Moussa fu mu nekk ak fu mu nekkul man sama fu c'est le cadet de mes soucis est yaa ngi dégg d'ailleurs man sama biir kër du ma fat ay violeur papa musaa c'est un violeur est-ce que yaa ngi dégg te man du ma fat violeur sama biir kër. déjà li tax ma génnew ko sax Amina mi day màgg te mënoon na fi nekk ak moom violé ko. yaa mun a fen. gannaaw da dof wala nu mu demee noonu. gis nga xale bi nga doon tudd jongam bërki démb xale boobu màgg na tey bàyyi dima affronter defal attention nag te nag dinaa la wax leen papa Moussa su ñibbisiwul ci kër gi yow dinaa la dénoncer police. te yow xam nga ni lu ma la wax dama koy def bu ñibbisul si kër yi dinaa la dénoncer def ko sa bopp. tey Gezman yi mais man tamit li ma def mbaa wóor na grand sëñ bi tata Ousé tata Ousé yow la kan man la papa Moussa magu Amina mi ngay papa Moussa yow lan ngay def

Avec tous les dangers qui coulent dehors mu <laughs> papa Moussa nous dem. ma dem sama faut hmm, Non, non non non Tu ñu dem sama kër nga faire un ba suba xamal que dès demain matin je vais porter plainte à ton père. allez allez allez jógal dem Man. Baye yang ngi Trump da nga yàgg fii. eh lan mooy suur na yow démb bi nga ñëwee mategal tegal la reer da nga bañ ne doo reer ma tegaat ndékki nga ne doo ndékki lan mooy loolu. yaay tànn soxna sama biir moo fees. Moussa bul def nii bul jooy Moussa man donte ko xale laa aw ma doom waaye ëllëg ñaanuma yàlla won sama njaboot gannaaw ñu leen di def lii. metti na trop nag te mbiri àddina la waaye bul jooy muñal loo muñ mu jeex bu soobee yàlla ndékkil ba suur tante man xaw ma woon ni ñàkk yaay nii la metti ndax bët bi mu lay xoole moom kese moo la koy xoole ci àdduna kon kooku bis boo ko ñàkkee ñàkk nga lépp ci sa àdduna ndey nag ndey kenn la mais gëm na ni bay bay ñëpp la ndax sama papa su taxawon sama taxaway yaay amana li lepp du dal suñu kaw bajjan hmm? jirim metti na sama yaay aduna Ya tul dara sama papa mu génne sama mag bàjjen sonn na ñun na la ñuy def Amina ñakuma ma hi ngi ba wet way sam pap da dalaa genn kër gi man may tëdd ba gudd sax bëgg naan mais duma genn naan parce que bu ma sama tante damay dor man doo naan papa musa laa bëgg ñëw ci sama wet Amina papa musa dina ko wër fu mu nekk andi Kia na ñaana hmm? man viol bi sax métti ma nga Xadijatu moom la hmm. xoolee ba Papa Moussa violé ko kooku moom la hmm. man de doom ni may gisee nii démb sama bët yaa ngi nii jooy naa fanaan ba bët set wécc wécc ma fanaanee jooy ndax gone gi jooy naa de man yàlla loolu yëpp méttiwu mais papa Moussa ñëwul sama kër yaay hmm? te na fi may kër yaayam gees la nekk papa Moussa fan la war a nekk demul foofu yëpp ah man te wax dëgg yàlla doom lépp lu ma mënoon démb wax naa ko bul génne vraiment wax a wax a wax ba sama ŋaam yi daanaka sofaloo nañu wax ba sonn bul génne la war a mhm. wax naa ba sonn bul génne wax naa ba sonn bul génne de doy na waar kay man ne <laughs> damaa jooy ba sonn sama bët yaa ngi nii jooy naa waaw jooy naa moom. Mhm. t'as vu de frère nii la demee li nga daj nii tey lu ko gën a metti laa daj démb si ko tu peux même pas imaginer Comme ça, saa jëf bu ñaaw bi mu def fii ci kër gi humilier ma dóor yow mais yow kan ngay nekk nit. yow ça va pas wala. dafa mën a violer xar sax ba di violer jigéen. non mais attends yow papa Moussa jëf bu ñaaw bi mu def ci kër gi yow yaayam bi tëdd alaaxira sax xam naa ne amatul lu ko neex bu ñëwoon fii dina am naxaru àdduna am naxaru alaaxira. mais tu vas arrêter boy. non man ci rêve wala. yow samay propre doom sama njaboot on dirait que yow yaa ma gën a bëgg sama njaboot yaa ma gën a son sa ah ok là je comprends maintenant yow c'est comme si que yow Nafi Mbaye bi muy dund yow da nga ko noboon yow walla am na loo sekkoon ak moom waaye non loolu rek la mën a demee. mënul nekk kii yow non mënul nekk sama copain mënul nekk ne yow yaay wax ni booy. man la en chair et en os non yow dañ la am ki dañ la japp ci galaj ni mudul nek nen pa musa arrête de délirer gis nga galaj bo amé kenn kuñ ci japp yow la yow yow mi lañu ñu téye ndengeñ la carrément ci galaj parce que lolu mo waral chaque jour boo xëyee tu viens chez moi di out lo dou da bay deug wa yow dorma yaay taxo fi nan ma day violé yow xana do dégg def bu ñaagum def papa Moussa dootul deug tek man ci kër yi ci adina jeex deena mo ci yam et puis lan mais arrête te eh, waa ah, ma ah ndaama yaay tane maa dem nga hôpital <laughs> sama yaay ba neex dem nga hôpital lu jere waaye nak fi lu fi xew ba xadija di dem hôpital jatu yëlantuñ ko fii mu di versinéem dem duñu duñu dem hôpital xool yaramam. yow Paa Moussa mii kan la mën a violer loolu yëpp dara amu fi nag ñoo ko manigancé. kon du dëgg dara du fi dëgg nag. jaxase suñuy bouillon def si ketchup ba mu gën a xonk ak tomate ak loqati bi toqal ko ci silib bi woote ñëpp ñëw. jatu yaay xaj yaay saay saay mën na xool sax waaye yow mii fidu yi nga am kañ nga ko am ak lii nii pour lan la. xadi mim xel foo ko jële te yaay affaire bi du man kese de man xalijatu mii toog te lépp moom la jaadul seen ñaari tur yi de ndekete nim nim nim nim nekkee dendee nii niroo noonu ngeen amee caay caay de ndekete mère nag du loolu xam nga xadi dafa yàlla dafa dogal sama xarit la di sama doomu ndey loolu am na pikiroo seetaan nag benn kenn di jógee kaw fee di ko xañ liberté ku ko nar xañ liberté am xoola ma yëkkati la nii ba nga jóg ma ne la faa. waaw waaw lan. dëgg nga def sax noonu la gis nga soo defutoon nii papa Moussa ñun lay génne kër gi ca biti. dama ne fi. kon yow maa ngi nii <laughs> de. yaay des na. lu des a di. plan B. Mhm. mais yaay plan B foog ma jënd ju ndaw ji ci kër gi bébé Amina. xalé mag fu mu nokku ci biti abal ma. kontaan naa ma rek am ah, ko ngi kontaan naa ci yéen. ci ma yaay jox ñu lenge ñi sa dom ngay am fofu dé ah papa Moussa yaa ngi toog.

tante billaahi yaa ngi toppatoo li ma am sa kër gi su ma ko amoon suñ kër du am dara lu ma métti ci àdduna mais dafa fekk ni sama rak Amina laay xalaat ndax amul kenn ci àdduna ku dul man xam naa ñoo ngi koy teg ay mbugal yu tar ségam sama tante su ma gisee la koy deg yu metti waxantuma laa su ma fa nekkul te maa ngi lay waatal si yàlla billaahi viole bi laalew ma ci taxew ma ci nee naa la waxi viole bi bul ma ci expliquer dara parce que xam naa ne defuloo ko ay mani la rek pour yow mais xamal ni dinaa la mot yaay bu la sukku jur dinaa la toppatoo sa bët dootul xonq ci àddina sa pàpp nag maa ngi koy xaar ba mu ñëw fii boy bu ndaw nga guiné ko ni sa gal ni ma nan la ko ni ooy. yalla sonn naa de. ma su suba ba tey ñu ngi wër Pa Moussa. Pa Moussa xaw fan la nek Pa Moussa xamul fenn maas. su yoron téléphone sax dang koy mëna wo xam fan la nek ni graal ko ni ñu ko bëggee dañ ko tuné rek dinañ ko gis inshallah am ci yaakaar njort bu rafet rek nañ dem. ki du aram mom la kay. aram. Arame kaay. xaritu Paa Moussa. yàlla baax na mu salaam. yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm waaw. gisoo Paa moom laa doon ñëw seet si sax parce que fan yëpp jàngi si dama kaa yónni woon. daa yéex moo tax. Ah, sama yaay ma mu woon sax ma naa ko xoolal si ñëw nga nuyul ma ko dégg. waaw waaw ngi dem. lan ngay jooy Amis du bàyyi sa jooy maas maas Pape Moussa xamul fenn Pape Moussa fan la dem maas su amoon téléphone ñu mën ko Pape Moussa kon dee yow bàyyi lu ngay wax waaye nga ne ay dee na koñ bi rëyul lañ dem dinañ ko gis nga bàyyi sa jooy naan ay rëy na ko doo ñaan jàmm sama Karit bi wajan kita lu kau. ba default cafe, café ci gratuit xanaa kontan. Gawe ma waxuma oh, ñaari seytaane yi ne ni ñoo dem seeti papa Musa non, ñi ñoo manqué ñi de xamuñ papa Musa non, noppee nafin feeñ ci mim unde, donyo wuñ de ay bés bu papa Moussa feeñee non sama sant baay laay jël tege ko ne. salaamaaleykum. waaleykum salaam. ça va soxna si naa def. ça va si yàlla. alhamdulilah ça va bien. bien gisoo fi benn xale bu góor bu am teint karaw gi xaw a sëkk tuuti. xale bu góor bu daw rek. démb am na benn xale bu ma gis si garage bi mu yore valise.

depuis démb ba tay ñu koy wër tantam la nekk ci kër gi tantam lepp lu bon lo xala rek mi nga koy def. ba may ñëw dem na ci benn pamara mu jox ma benn sunguf ma wis ko ci buntu kër gi dama la waxul dara tay ji la. wa leg la la wax. nena ma boko wisé ci buntu kër gi papa Moussa dotul tegati tankam ci kër gi. lan naa neex. depuis démb koy wër. ok maintenant xam nga police parcel xam na quoi jox ma sa téléphone ma jox la sama numéro ok bu si kanamé nga fekk ma fa d'accord décidément ay jank li bes bu amé eh, ba xam nga ni sama xarit bi ngalam la lay waxo No jaaro o bu ne mood la lay takkal eh, kon de jàppale mën nga doxantu ndànk ca tëgg ba xam ne li ma la wax nii dara du ko dindi papa Moussa dootul feeñ. non sama xarit nakate moom laa bëgg. jeex na. ah waaw baax na ñu savouré victoire loo ci xamul café gi dama ko def ak amour laa ko defee. dëgg la. <laughs> si Hmm. tëddal nelaw yow yàlla maa ngi lay ñaan sama mag jiiri papa Moussa ñaari fan a ngi nii kenn gisu ko maa ngi lay ñaan nga aaral ma ko sàmmal ma ko ngir mu delluwaat ci suñuy loxo bu nekkee lii sama pexey tànta la yow yàlla maa ngi lay ñaan nga soppil ma ko ndax moom moo jur sama rakk Muhammad kii duma ma dimbale jooy seytaane mi yéen yow nga jooy dëtt jooy deret taxul sa nday ñëwaat yow dimbale nit ñi waay. ay tante yërëm mooma xanaa sama yaay dee ñu génn sama mag. yow ma nga naa man tante xanaa yërëm mooma. tante baal naa ak ndax dangaa jóg. bébé mi na. tonton. yow ndab yu bëri yëpp yaa koy raxas. ndab yu bëri yii nii yëpp. waaw. ani Xadi. sama tante dafa génn. baax na. Cisco. Cisco. mais babis Papis doom rew nga de babis na fekke may nelo nga yak sama nelo Papis. Yo nee naa so sa doom sama jarbar mi ngeen jaral adina ndab yi ndab yi ya nga xamni yow mi buñ la ko tegalon mi yow mi mamam do ko raxas loolu foo leen ko teg. Papis Amina jigen la day jang liggéey dégg ah, Amina jigen la day jang liggéey. waaw du fexe ngeen ba genn papa musa kër gi waye bébé Amina mo leen di të ci kër gi dee kese ko fi jëlee ta papa musa dina ñibbisiwaat.

allo Kia naka mu ça va bien waaw waaw non non jàmm sant bëri bi sax talu ma ko dama bëgg nga ñëw kër ga léegi léegi léegi léegi dama la soxla c'est très urgent nag non ñëw léegi léegi léegi maa ngi fi ok baax na ça marche arrêtel jooy yi bàyyil jooy yi war naa Kia mi ngi ñëw ci kër gi c'est bon gis nga de ni ma la woowee accéléré la nga ñew bu mo ñu ne si téléphone bi di détaillé ak yooyu non ci wa jàmm la nak ak salam kër gi ça fait un bout de temps ciow di détail yi wax yi yooyu ñu nak leen rek la bëgg yow sama petite sœur nga na bokk nday ak bay ki sama jabar la mo bëggoon yéen ñaar ngeen mëna am jàmm ci biir kër gi nga mel comme ni nga melone ak Nafi Mbaye mom la bëgg nga mel ko ak moom. Eh, Cisco ki sama jabar la waye daf ma jàppewu njëkke moo jabar suma ma won woon rek dina ko jappé jabar mais nak amul problème man jàppalu ma dara parce que sama jabaru mag la bayna lepp mu seet graw be man tamit jàppalu ma sama chéri. d' accord danga am loo bëgg doole. waaw. Xadi mhm. dama bëggoon nag wax dëgg yàlla sa vrai visage nga won ko sa jëkkër ji mu xam ko jikko bi ñuy woon ak sa jikko du benn de. Eh, bébé noppi noppi. yow est-ce nit nga yow maa ngi jubóolee kii même pas une nga bëgg a taxaw fii di wax ay waxu visage affaire yooyu noonu. dañ maa bañ a bëgguñu ma. yow vrai imbécile nga quoi doo sax nit yow. waaye yow waaw gën a na jeex na noppi yaay tax nga def ma nii nga dem kenn xamul fu one ba bëggee lekk duma lekk ba bëggee naan duma naan mu bëggee sangu sax duma am ku ma sang papa Moussa sama mag mu ngi nii ñu génne ko kër gi xaw xaw ma fan la ne yaay est-ce que doo ma baal nga dellusiwaat àdduna ndax suñu àdduna mën a neex léegi Cisco ñëw nañu faire genre nga tëdd fii xam-xamul ma lay fotti ndox di la naan àdduna amul solo dañ def loolu dina baax foog nga eh, jooy sax léegi waaye jeex na wuy <laughs> sama я боявся. Ой. waaye xadi bàyyi li lu xew lan moo xew ba jàmm aywaay xadi. eh bibi lan la lan la. xadi aywaay aywaay sama xarit aywaay. xadi lan la xew fii. eh doucement. kii de li nga génne papa Moussa moo tax booba tey mu nekk fi di xam ni bëgg maa jaaxal samay loxo parce que nee na waa koñ bi. ñëpp dinañ ne moom moo tax nga génne Papa Moussa parce que xale yi ay jërim lañ ma ne ko yow doo ci dara man mi nga xamante ne man la Papa Moussa violé bu ma neexoon Cisco ma porté ko plainte mais du ma ko def parce que man léegi ci kër gi laa bokk comme te man na maa mën a comprendre loolu kon xaritam na bàyyi li muy def. xarit bàyyi li dafa metti lii na fi bu doon dund wala dund ak doomam di génn kër gi. Ah. waa koñ bi lan la ñu wax dama bañ xale yi bañu leen. bañu leen sama koon eh. fii wuy ma yow nekkoo ci ginnaaw lenn dama bëgg que tu tranquille ok. dañ naan maa nekk ci ginnaaw bi non non non non Papa Moussa moom moo bon bonu boppam rek bu jaaroon fi ma ko jaarloo yore éducation bi ma def ci moom kon kenn du wax ci jëf bon bi ci moom moom moo jël beneen yoon. donc moom la Amina mi ngi nii xale la ci jigéen kon moom muy nekk moom ci kër gi Mouhamed la même xale la bu màggee bëgguma mu roy li papa Moussa di def donc sois tranquille lii sa yoon nawe ci jotewul ak yow dara d'accord nga mën ci dara ok léegi jugal jugal nga dugg ci biir waaw jugal rek ay ci biir Ouais, d'accord, d'accord, il y' a pas de souci C'est juste que temps yi xam nga je suis pas trop disponible quoi mais dès que je serai libre après je vous reviens y' a pas de souci loolu méttiwul incha allah ñoo faax waaw ok jaajëf. Cisco. Papis. ça va. ça va bien. Et enfin, yëpp maa ngi ñëw ci kër la seet mais dañ ma naan on go wala da ngaa génn ba léegi mënuma la gis. waaw safel kon sax xam naa ne dañ doon wërante dañ doon seetante man ak yow déjà j'avais besoin de toi yow Papis ban yàpp nga ma yàpp wala ban manque de respect nga war a mën a am envers moi bay ñëw sama kër naa da ngay attaquer sama jabar di ko saaga fan nga teg loolu. Cisco yow ban droit nga am di jàpp xale di torturer di leen toroxal mais ni duñu say doom yow. sama mag nafi dafa liggéey loolu. non mais attends yow ci arrêtes yow doo régler papis donc damay sa moroom booy waxal naan danga may jox ay leçon de morale. yow kan eh noppil ma ba pare. Cisco noppil ba ma wax li may wax ba pare. yow réew nga de booy. tu es très impoli yow. ba tey dama ni la Nafi liggéeyul tey li ngay fay ay doomam yow seen tante bu jógee di leen expliquer loo xam ni dara amu ci nga jàpp xale yi di dóor di torturer di toroxar. eh gis nga man maay seen nijaay. je m'en fous nga nekk seen nijaay. man du ma sa morom laa la wax. xale bu ndaw nga regleel bul dugg sama ménage naan da am loo ciy waxaloo loo ci expliqué yow barki démb lañ la jongal fii nii sama kanam tey nga ñëw nga ne da nga may jox des leçons de morale. barki démb lañ ma jongal mais sama mag bàyyi na fi la nga xam ni ful la ak fayda mën naa diriger sama jabar yi. eh genus sama kër génnal gàlle bi. ma génn sa kër voilà. si kër laay dellu. tu dégages. doo sax rus. ñàkk fayda mer. si.